fekk ñaar ñuy waxtaan ñuy waxtaan ñuy xadara bi tey business des fois ñaar ñuy werante ci xadara bi moo tax tey man it am naa occasion tuuti leeral comme ni ko mbokk yi leere leerale lan mooy yëkkati xadara li ñu yëkkati li ñu tënk li ñu tënk bis boo leen tegee seen bët. ngeen ñëw di ah li ngeen waxoon gàttal moo leen bi mu xamoo ni ci la yonent yi tënk ci gaa yu baax yi tënk. daayira xadara bi mu ngi sosi mu ngi sosu en 2007 biir kër waykat bu tedd boobu El Hadj Mamadou Lay Ndiir. weeru koor bu musaana bu ñu musaana fi ba pare fii lay ñëw toog fi fi lay ñu dem sopp koor. ca fa nga xam ni fa la doomi jullit yi di reye seen guddi koor ci tudd yàlla ak ko yonent bi bu ko defee bu micro bi ëgsee ci man ma woy ba ñëpp kontaan waaye it lu ñu ma fa jox ngir yonent bi daaw ko daaw ma ca am soxla bu ma ñëwee dama koy teg ci loxoom moom itam nag du ca am soxla day daal di dem jënde ko ay meew ak attaaya ak yëf ñu fanaanee attaaya ci sama ëtt bi ba asamaaw set fii nag ndekete ci at mi ñu ko sosee moom lim fi ndeke mi ngi fii formé daaira bi téyegu mukk wari nañu ba mu am juróom benn weer ñu door ma ni formé nañu fi benn daa daayira moom lañu fi daan toogandool di waxtaan mbiri àddina mbiri lépp sëriñ bi si xalaatam mook ñi mi àndal mu ni su ma sañoon fii ñu toog nii di kër alhaaji Momad Laye Ndir nga xamante ni bokk na si pays Serigne Abdoulaye na bokk na si kër Serigne Abdoulaye ñu fi dajale waxtaane fa leneen lu dul lii dama bëgg nag ñu waxtaan mbiri lu ñu ci xamante ni day jariñ suñu diine jariñu suñu adduna jariñu suñu àllaaxira ñu ni ko bismillah muy dama bëgg léegi ñu ut benn bis boo xamante ni dañ fay dajaloo chaque bis boobu ñun ñëpp ñu daje yor suñuy kurus jamono boobu matuñu sax fukki góor chaque vendredi ñu daje benn kër sëriñ bi digal ñu ay askar askar yi mooy dama bëgg ngeen di wax seeni i kurus laa la la salaatu ala nabi ak yeneen yoo xamante ni dafa ñuy jëriñ ñun ci suñu bopp jëriñu suñu àdduna jëriñu suñu àllaaxira defe naa noonu la commencé defe naa ni 30 24 décembre bi njëkk a def ñu ko def fii si kër gi boobu kenn ku ne 300 francs nga natt pour ñu defar ay beñe foofu la ñuy départ di départ ba xajatuñu ci saal mu jigi ñu génn si mbedd mi si kër ba xajatuñu si kër mu jigi nag ñu daal di génn nag di ko def ci mbedd mujj gi mbedd mañ ko doon defe xajatul fa mu gi nag ñu koy indi si buntu kër Serigne Abdoulahi muy mbedd mu gën a mag ci Malika nga xamante ni lépp luñ fa def ci baas chaque année nañ yokk benn baas te texul mbooloo mi duñ ak jàngale moo doon mission jàng ak jàngale moo tënk yonent yëpp jàng la ak jàngale ak sa gaaw a te liy jagal adduna ak diine bu ci jàngat jàng na génne dara du ko des. ko wax daayira wax diine te diine nag wax dëgg yàlla euh, xam-xam moo ko yor ci loolu nag ci la daayira xadra bi sukkandiku daal di organiser li nga xam ne nii mooy commission culturelle. muy commission boo xamante ne nii daanaka lépp xadra bi moom moo ko téye ndax xa daayira bi daayira daayira xam-xam la te commission culturelle. lu rëy loolu ñoom lañu ko jagleel. di composé commission culturel bi ay borom xam-xam la. am na ay ay mag ci biir nag waaye du ñu ay mag lool am ay xale ñoo ci ëpp. diplôme bu nee mu ngi fi. am na si ñoo xam ni sax ay enseignant la ñu ngi ci état bi di jàngale. di ay ndaw yu am xam-xam tamit ba pare bëgg xam-xam tamit. tey jii xadra bi mu ngi compté plus de vingt enseignants yoo xamante ne nii tey ñu ngi ci état bi te ñoo ñëpp saa bu leen bi soxlaa ci ndaw ñooñu. dañuy boole seen xam-xam seen doole seen lépp ñëw jàppalee ko ñooñu te ñooñu liñ koy defee noonu la ñuy continuer aussi tamit di jàng partout dans le monde. aspect bi nga xam ne nii ci la commission culturelle gën a taxaw mooy jàng ak jàngale donte ni sax dina dugg yenn saa yi ci biir daayira di saytu li nga xam ne nii mooy maanaam taxawaayu membre yi ci biir daayira di leen wax maanaam li araam ak li araamul waaye daal lim gën a taxawee mooy jàng ak jàngale ndax jàng ak jàngale ak jaamu yàlla. dafa bokk ci mission yi nga xam ne nii démb yonent yi moom lañ moom lañ taxawee woon ndax euh, suñ borom moo leen jàngal jaarale ko ci jibril ba pare ñoom tamit ñu dellusiwaat di jàngal ñi nga xam ne nii ñoom lañ woo ci diine lislaam kon mission boobu nag ci la daayira xadra bi tënku ñoom tamit daal di jël seeni ponk euh, def ko ci li nga xam ne nii mooy jàng ak jàngale ak jaamu yàlla commission culturelle bi taxawal na li nga xam ne nii mooy ab daara ci jàngal seeni ay yaay daara boobu nag mu ngi ko créé li nga xam ne nii mooy en 2000 2016 maanaam ci ndimbalu ki nga xam ne nii mooy yaa daara ji nag mu ngi commencé woon ci benn classe ñu daan jàng alxuraan kese ku mel ni oustaz libaas wala oustaz yusu daan ko taxawee léegi nag yàlla dimbal nañu ba daara ji dem tey ba toll ci 300 membres yoo xam ñu ngi jàng ci si daara ji si loolu tamit ci la commission culturelle daal di sukkandiku daal di defar benn livre bu mucc ayub boo xam ne nii ci lay tënku di jàngal li nga xam ne nii mooy sunu yaay yi danañ fa jàng alxuraan danañ fa jàng tamit li nga xam ne nii mooy xadis di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit danañ fa jàng li nga xam ne nii mooy fiq nga xam ni mooy wax lépp lu jëm ci wàllu diine ba tey jii suñu yaay yi même bu ñu xamul lépp sax ci seen mbiri diine xam nañ la ci ëpp. bëgg xam suñu mbiri diine loolu daal moo tax ñu ñëw ci daara ji xam nga ay mag yu am ay juróom benn fukkat jëm kaw bu nu añee ba pare jóg di yéeg ay escalier di jàngi am na lu ñu bëgg lu ñu bëgg nag yàlla mu nga ko fay woon yàlla moom kenn mënu koo jaamu ci làmbatu te dañoo war a jaamu yàlla suñu borom te kenn du ko jaamu ci làmbatu kon il faut ñu jàng ndax bari na ci ñoo xam ne bi ñu ñëw ci daara ji faatiha bu àgg sax mënuñu mais léegi bu ñuy wàccee kaamil dañ leen di jox ab jukki bu dee donte la amayta ak suuf la sax mën nañ koo jàng sunu mbiru julli wax dëgg dara umpatuñu ci waaw lu ñu ci bëgg a xam-xam nañ ko bu julli gi yàqoo tam mën nañ koo defaraatal suñu bopp te loolu bi biñ fi ñëw mënuñu ko woon jàngal nañ ñu fiq jàngal nañ ñu cangaay bu kii jàngal nañu ba jàngal ñu nu ñuy sange néew ndax xam nga jigéen bu faatoo góor du ko sang jigéen moo koy sang te loolu jàngal ni ko ba macha allah kenn ku ci am sa néew mën nga koo sangal sa bopp te doowul kenn. daara ji am na njëriñ boo xam ne bii dafa yemul ci suñu biir kese rek dafa law ba ci biir dëkk bi ndaxte bari na ci ay góor yoo xam ne yàlla xam na ko ñëw nañ ba ci man ñii ñëw nañ ci man ñii dem nañ ci sëriñ bi ni leen ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax daara ji tax na man de am na koo xam ne daf ne ma sama soxna ku tàngoon la mais léegi moo ma nooy ci kër gi. ba pare te moo ma ëpp ay raaka bu ñuy naa la am na benn ku yónnee tam ci sëriñ bi ni ko nee leen sëriñ bay maa ngi koy sant di ko gërëm ndaxte man de léegi lu ma bàyyi ci samay poos bu ma ñëwee ci laa koy fekkaat te daara ji moo ko ci def lii nga xam ne bii mooy jëw ak wax lu amul dañ koy daw lu ñu man am na benn maire boo xam ne marché la nekk dafay liggéey ñëw na ba ci man ni ma wallaahi laa seen léegi bu ma leen rombee sax dootuma ko bëgg a geestu ndax bañ a daara ji moo tax ma bàyyi jëw da nga daan rombanteeg nit laay mu ne laay nga dem sa mais léegi gis nañ ni bëggante gi nekk ci suñu biir macha allah te daara ji def ko ci lu am solo ñëpp a ngi ci daara ji man mii nga xam ne man lañ def ma nekk jëwru ni jigéen ñëpp euh, wér euh, Seex naa Ahmad Tidiane laay man Tidiane laa te man la jiital ci mbooleem jigéeni xadara bi yëpp yemul sax ci daara ji yëpp daara ji njabootu maam gaan yi ba ci féminine yëpp jigéen ñi nekk foofu yëpp man maay seen jiit te wérdu Seex na Ahmad Tijaan laayo loolu nag mu ngi koo jëlee ci kilifaam Serigne Ablaye noonu la yore woon Malika ñëpp fa nekk daara ja tam ñëpp fay jàng si tarixa yëpp fa nekk waaye tamit yemul foofu ndax tamit bëgg na góor ñi ci seen bopp ba tax tamit ñu ubbi leen daara ñoom góor ñi nga xam ni ñu ngi jàng chaque euh, alxames ak àjjuma bu ñu jullee timis ba pare Oustaz Issa di ci ànd ak ñoom ñoom tamit yaakaar naa programme lañ leen tegal comme ni ñu ko tegalee ñi nga xam ni nii mooy suñu yaay di leen ci di leen jàngal. ndax yàlla dafa wax ci alxuraan ni euh, wa maa xalaqtu jinna wal insa illaa liya'buduun maanaam sàkk ma nit ak jinne du lu ngeen jaamu mais ba mu pare ci loolu dafa wax xadis xudsi mu ni taarifuni xabla an taabuduni fa in lam taarifuni fa kayfa taabuduni xam leen ma bala ngeen maa jaam ndax su ngeen ma xamul ana nag ngeen may jaam boo demee tamit ci laxdar ji introduction mu ñuy wax naan wala yaxil du dagan loxoo ñel mu kalaf bi ayafan bu jëf ixlan bépp jëf xataa yaxlamal may dafa xam xubmalaahi attab yàlla fii ci jëf jooju mu ne waaye soxna day laaj al ulama borom xam-xam yi waaye yaxta di nay roy bi mu tabiye ci way topp ñi di sunna muhammad wasalla yàlla dolli xéewal allahu yàlla alayhi ci moom wasalam te mu cël ko mu mel ni kon nit ki euh, war na xam euh, nan lay jaamoo euh, nan lay war naa jàng am xam-xam pour xam nan la mën a yëwanal àddunaam ak diineem boobu tax na même fu mu koy sàkku jee lu mu sori sori borom xam-xam fu mu nekk lu mu laaj ci distance lu mu laaj ci moyen lu mu laaj ci alal war nga ko cee def pour am xam-xam boobu mën a yiwanal sa diine am na mag ñoo xam te ñu ci dëkk yi naam dañoo toppoon nasaraan bi wala ñu wax ne tax di mënoon école dem ba nekk mu kàllaf te xamul mu daal seen diine ci loolu la créé daara jigéen ñi créé waaye ci daara góor ñoo xam ne ay mag lan ñun ñi lañ ci leen ñëw ci loolu la créé woon depuis le 16 avril 2016 euh, dañu woon ñun góor ñi pour ñu jàng ci daara ji boobu ba léegi nag gis nañu wax dëgg yàlla sunu xam-xam ci diine naa suñu doxalin ci diine gën naa yoon bu baax a baax a baax parce que bu njëkk dañ daan rek doxee xel mu rafet mais boo xoolee am na ci ay assises yoo xam te ne yu xarañ yu am yéene dégg dégal ba pare am ci pédagogie boo xam te ne nu rek ñu ne ñu ñu feet ji comme ça. dafa xool li nga xam ne mooy farata nga xam te ne mënta dafa urgent ñu gaaw dugal ci loolu jàngal nu lépp yoo xam ne faratay laab la faratay julli faratay jàmm xam te ne moom mooy prioritaire ba pare tout temps nag dina jàngale ay fer iji ba fi mu nii. ñu mën a liir ba juste amaa bi jeexal nañ ko fu mu ci alxuraan mën koo liiral suñu bopp mag ñi fi mu toll ni amatuñu lay amuñu xam-xam parce que ki nga xamante ne loo waroon dem jéggane fa ci àll ba dem ci li ko ñu indi la ko ba say tànk laajul ci dara loolu sañ bay def ba tax na ñu ñëpp fu mu toll nii xam nañ suñu mbiri diina xam nañ nu ne nii yëwénali suñu jaam yéen ñëpp seen mission mooy jaamu leen yàlla bu leen ko bokkaale dara te mbokk yi nag war nañ cee taxaw gars yi dañ fonkaat jaamu yàlla yàlla nee na wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bindu ni leen jinne lu dul ñu jaamu nee na loolu moo tax ma wàcce leen ci kaw suuf mission wàcce ay yeneen yu bëri wàcce ay téere bàyyi ay woon xam-xam pour lan pour ñu jaamu. commission culturelle taxawaay bi am ci jaamu yàlla. fexe na ba chaque ajjuma buñ jullee ba pare muy amal li nga xam ne nii mooy daayira partie de 15 heures ba 17 heures maanaam buñ ñëwee dinañ def ay askar bu ñu paree aussi tamit oustaz bi ñu tànn benn oustaz ci commission culturelle ma xamal membre yi fa nekk seen mbiri diine

ba jékki-jékki am lu dox ci lolo diggante mën a loolu mënatu la wëy ba ko neexee téye loxoom te bu dee dépendance boobu ci kooku la rek nga ko wéeroon tey bu li nga ni moom moo objectif wala sa philosophie lolo mën na mën na sooxe donc mu nekk pilier boo xamante ni aussi tamit dañ investir corps exam pour ñuy réussir ko te pour loolu tamit mu am benn réussite il fallait que ñu teg benn organisation boo xamante ni day ëmb informel ndax am na ñu nekk informel ñu nekk ci biir am na ñoo xamante ni aussi tamit dañuy yëngu ci wàllu formel ñu nekk ci biir jonction boobu nag pour nga boole leen ba mu mën a jot ba ba mu mën a ba mu mën a jur benn fruit dafay laaj organisation. képp koo xamante ni moo ngi bokk ci daayira xadara bi sëriñ bi danaan nan xam mooy kan ak lu mu mane bu dee élève la ñu xam ban niveau la toll bu dee koo xam ne day daan dooleem ñu xam tamit ci li muy li muy yëngu loolu lim ñuy permettre mooy tey bu dee ndaw nga. am nañ ci biir daayira bi ay commission yi nga xamante ni dañ koo jagleel xale yi ñu ñu ci mel ni waa yaakaaru axlu bayti bu dee ab jànk la wala jeune waa décoration ñu ngi fi ñoo xamante ni dañuy réunir tamit seen i morom lan waa féminin ñu ngi fi muy jànk ji bu dee mag la moo xamante ni nag maam suñu moroomi waajur la am nañ ci bu dee wàllu jigéen ñi daayira bu ñuy tuddee daayira maam gaan nga xamante ni ku ci nekk daal saa boo egsee ci xadara bi am na fu lay fu lay classé lu bari nga xamante ni commission yooyu ma fi tudd léegi dañuy réunir semaine bu ne danañ daje bu dajee di waxtaan seen biir xool nu ñuy ñoŋale seen commission ak teg ay perspectives yu nga xamante ni dinañ mën a développer commission bi euh, loolu yëpp nag fin du mois mooy doon réunion boo nga xamante ni euh, structure boo gis daal am na bureau boo xam moo ngànk daayira xadara bi ñu koy wax daayira bureau daayira xadara bi day dajale à fin de chaque mois commission yëpp nga xamante ni ñoo nekk ci biir daayira bi muy mag ndaw xale ñoo xam ne ñu ngi ci biir daayira bi ñu dajale leen boo ko defee mu restituer information yi nga xamante ni commission yi ñu ngi ko doon ñu ngi ko doon am ci seeni réunion bu ko defee ñu wàcce ko ci table ji lépp lu nga xamante ni war nañ ko ci corriger ñu corriger ko lépp loo xamante war nañ ko ci dindi ñu dind ko ci maanaam duñu hésiter sax buñu waree mettre quelqu'un à l'écart dañ ko ci dañ ko ciy def loolu nag moo ñu permettre bi ñu toogee suñu biir ci réunion yi nga xamante ni daanaka mën na ni ay borom xam-xam ñoo fay ñu ne daayira bi war na dépassé comme ni nga xamante ne daayira moom lañ ko xamal bu njëkk mooy zikar rek daal di dem tëdd ñu ni ci kaw loolu nag mooy waral baat boobu mën a wax ni xadara business ñu créé ñu fexe daal nu mu mënee daanee suñu doole di tuur suñu ñaq waxuma ci biti mais ci biir daayira bi ñu fexe créé ay emploi juridiquement daayira xadara bi ñu xalaat association ñu démarché ci daat yi nekk association ku ne xam na ni euh, ay fonction dafa limité njënd ak njaay meeg yu ni mel dañ ko fay tere ñu ni nag ñun dañoo bëgg créer emploi pour ëllëg ñoo ñi nga xamante ni on les a diversifiés mooy ku ci nekk am nga foo nekk te ku ci nekk am nga statut booy doxee nan la ñuy def ba ci nekk bonte liggéeyee ci état ñu mën a jël suñu biir la jël nga liggéey ñu créer li nga xamante ni mooy mooy GIE xadara bi. dañu ko doon commencé ak ay capital bu néew boo xam ni matul woon sax quinze mille francs ñu nekkoon ci di ci débrouiller di jaay ga di jaay omo yàlla dogal barkeelal ñu loolu ñu ciy doxal di ci doxal dajale suñu li ñu am mu nekk benn cent mille francs yàlla dogal ñu am benn yaay bu ñu associel boo xam ni dañu dem mu dimbali ñu ñu jënd suñu ñaari keesu ginaar mu di ñu lebal aliment ñu jaare ci ba taxawal pulaaya ci biir bi ñu taxawalee pulaaya tamit di doxal demoon na ba mu yàgg tamit warga yooyu yaatu ba ñu def ko ay commission warga ba tey ñu utalaat ko commission am ñeneen ñoo xam ne ñu ngi jaay ay souvenement ak ay robe ak ay nangam yàlla dogal ñuy dox ci loolu ñu dem ba dugg ci opération tabaski même opération tabaski tamit dañ daan def di sotti suñu soble di sotti pomme de terre ci événement yi di ko jaayaale lañu ñu cay for ba tey muy dellu si ci mbir mi yàlla dogalit ñuy dund ba am benn boutique alimentation diko doxal liko gëna yombal aussi timit moy ñu miser wu sur l'entrepreneuriat communautaire tay xadra bi li muy yépp mu ngi def plus de 1100 membres mais li tax organisation bi wul noonu dès le début sëriñ bi dafa am xarañte xadra bi nit ñi ni mu toll noonu ci ci ci dayoo mu send ak ay ci ay commission am na commission décoration yoo xamante ni nii tey bu ñu doon xayma ci seen ci suñu budget presque àgg na ci cent cinquante millions te bi ñuy débuté nit moo ñu ko doon defal ñuy luye ay saret ak leneen ak leneen ñu dem ba ci biir xam ni lii ñuy def di ci dépenser xaalis war nañ ko mën a mën ñu jël ay ndaw defal leen formation bi tey loolu nga xamante ni nii dañ ci doon fay di ci génne suñu xaalis tey mu nuy générer ay millions. ñu gis ni tamit ci. diine ji bëgg nañu bu jàng dee am wala nangam di am ñu koy taaral ñu am yéene ñun ñu bokk ci ñi koy taaral ci la ñu créé woon décoration di ci taaral diine ji mais en même temps mu nekk métier ci ñu ci biir loolu yàlla dimbali nañu ba liñ ci doon yéene lu ci bari ñu am ko lu mel ni événement ngejj ga nekk ci dëkk bi ñu koy taxaw di ko décorer di ko sonoriser lu mel ni ngor tamit ñu koy taxaw di ko décorer. lu mel ni gàmm yàlla dogal na ñun ñoo ko jëkk a décoré ji doon nañ ci am ay moment yuy jafe di ci am moment yu tar ñu gëm ko comme niñ doon wéy di gëme suñu lépp liñ doon def yàlla di dogal ñu ciy dem ba mu yaatu ñu ñuy woo fu ne ay marché yàlla def mu dox lool macha allah ñu xam ni tamit liggéey du dox rek nga ni mat na ndax bis bu saturé sa liggéey boobu dafay yàqu ci la décoration tamit sos yeneen i branche yoo xam ne bu ci nekk moom moo la dooleel ci ay propre moyen jënd camion yàlla mi maye dogal ñu jënd ko ba am léegi ñaari camion yàlla dogal ñu dem ba am jënd kër benn somme de trente millions lu mel ni oo jàmmalaay leneen ak leneen aussi tamit décoration tey mu ngi koy mu ngi koy mu ngi koy générer te au début nekkul woon loo xamante ni lu significatif la woon beneen bi aussi tamit muy commission audiovisuelle tey ku xool angle yi nii waxee yëpp commission audiovisuelle moom mooy diffuser loolu ci loolu ci lañ fexe ba am ay écran du jour yoo xamante ne nii ne permettre événement bu waaye mën a am dinañ la mën a couvriral sa événement mu mucc ayib. bi ñuy ñëw ci diine ji gis nañ ne lu bëri xawoon nañ koo rafle lu jëm ci côté wàllum wax maanaam loo xam ne rajo la. wala loo xamante ne dafay wane maanaam ñu koy wax vidéo ak son ci la ñuy toog nag xool xam na ne na dëgg-dëgg comme que ay jeunes lañ te li ñuy yokk fit mooy li Baye laay waxoon diine jàng ca mag ñu muus ñàkk xale ya ñun ñu njott ne ñu ngi bokk ci xale yi ci la toog waxtaan ñu dëgg-dëgg nag teg lu mel ni commission audiovisuelle dagan na ci biir daayira xadara bi ci noonu lañ tàmbalee biñ tàmbalee liggéey bi nag doonu woon lu yomb ndax ku ne xam na ne lu jëm ci côté audiovisuel loo ci laal dafa cher ñu tàmbalee ci ñaari baaful ñaari baaful yooyu nag moom lañ doon sonoriser ci li nga xamante ne ni moo xam mariage la boo xam ne dañuy sonoriser ci diine parce que ci diine la ñuy yëngu ñun duñu sonoriser musique ci la ñuy nab nabal ñu toogaat gis ne boo décorer ñëw sonoriser nga gis ku yor appareil photo photo nga gis ku filmer aussi ñu ne ah pourquoi pas xadara bi mënul fexé am lépp parce que ku soxla cérémonie boo ñëwee ñu mën laa filmel waaye ñu mën laa fotol waaye ñu mën laa sonoriser waaye ñu mën laa décorer ngir ñu mën a yokk suñu koom liggéeyal diine rek objectif boobu la ñu am te xam nga ne nit mënta dëkk ci tàllal loxo ci la ñu continuer activité yooyu ñu ciy nab nabal di ci góor góorlu bu ñu jëlee reportage am ci lu takku bu ñëwee ñu épargner ko ci noonu lañu def benn par benn di yokk ay baaful di yokk aussi tamit lépp li nga xamante ne moo jëm ci wàllu caméra. tey entrepreneuriat kenn mënu ko wax te boolewu ci jigéen ñu def de tele sorte ko moom benn commission féminin boo xamante ne nii bu dynamique la bu am xam-xam. ñoo xamante ne nii lépp loo xamante ne nii am am la ci wàllu seen àdduna. muy formation et tout ça fexe nañ ba nàmmatal leen ko ba nu am ko ba pare ñuy def ay résultats yu mucc ayib muy daayira maam ngaan yi ci nekk muy un deux trois. daara ji moo ëmboon lépp benn kii woon mu dem ba yàgg mu ni jéeg ju ndaw ji nañ leen xaajale ak mag ñi ñoom ñu ber seen groupe bi bopp di def seen liggéeyu bopp daal mu di leen financé ñuy liggéey. njabootu maam ngaan yàlla dogal na mu màgg ba mën a jur yeneen njabootu maam ngaan yoo xam dafa tasaaroo si Malika bi si quartier yu bari. mu mel ni Malika plage am na fa benn njabootu maam gaan croisement Malika aussi am na fa benn mu ñetti njabootu maam gaan yoo xam ñu ngi liggéeya xadra bi doole jooj nag bu buñ ko amee kin koy gërëme di ko sant mooy suñu responsable moral di Chérif mbay Laye ndax moonu jàppale moo dimbali at mu jot dina yëkkati si alalam financé jigéen ñi pour ñu liggéey loo xam ne si dina dem ci xadra bi mais li ëpp tamit dina dem si seen bopp ak seen njaboot ndax financement yooyu ñuy génne duñ ko jox si leen ñuy mën na liggéeyaat ba mën see am dara loo xam dañ koy def pour liggéeyal suñu bopp ak loo xamante ne dañ koy liggéeyal xadra bi loolu yëpp nag ñu ko koy gërëme moom. bi commission bi sosoo am na benn tur bu na moom boo xam ne comme ça léegi sax da ngay reetaan ndax ay jéeg ñoo ko composé woon. wante ñu demee ba bëgg am tur sëriñ bi dafa woo magam muy taawu sëriñ Ablaye. di Seyna Laye moom moo ñëw fii sëriñ bi ni ko damaa bëgg njaboot gi nga wutal leen tur mu ni tuddee naa leen soxna maam Ngaan jóob bi nga xam ne mooy waay juru sëriñ ab laay nga xam ne moom la ñu sédde waa Malika ndaxte bi mu génnee àddina sëriñ Ablaye mënoon na ko yóbbu Yoff mënoon na ko yóbbu Cambérène mais dañu may naa ko waa Malika loolu moo tax tur bi ñu jox ko maam Ngaan jóob

ñu accompagner la muy xadra bi lépp loo xamante ni aussi tamit accompagnement la en numéraire muy xaalis ñu accompagner la ci mais lépp loo xamante ni aussi tamit accompagnement la en industrie muy le savoir faire xadra bi def kéemtalaay katanam pour euh, pour jàppale la ci. ñu ngi ci woo jigéen ñëpp nag ndaxte lii da di lu am solo ndaxte amuñu ci àddina lu gën xam sa diine yàlla kenn du jaamu ci làmbatu na ko comme que dala nan kaa ñu jàngal la sa te fayikuwuñ la dara ah ñu ngi ciy woon ak mbooleem jigéeni Malika yépp doomi sëriñ day ñeme daara te bëgg xam-xam sëriñ bay ko ko naw ci loolu nga ko nawee dafa bëgg xam-xam bëgg daara tey itam nangoo jàng nangoo jàngale di ci di ci woon ak képp koo xam ne rek bëgg nga jaamu yàlla parce que nit koo xamante ni depuis bi nga xamee bi mu nekk xale ba léegi ñun ak magam sëñ jaama ñoo doon ànd di ko fecc ci kër gi mu nekk xale sunu kanam mais dëpp boobu ba léegi gisuñu benn taxawaay boo ni nit ko ci xeeb lu mu ko ci ngànc leneen jàng rek temps yi dem ci këram di seet sëñ jàmme tout temps mi doon jël ay kayam dem di jàngi doon ko xam noonu ba ni mu màggee nii continué ci lancé boobu ba léegi nii temps yoo ko déggee sax mu ngi wax man maa ngi jàng ba léegi moo xam nit koo xamante ne xam-xam daf koo ñor ak liggéey booy demee ci tuuru daayira xadda bi am par sax loolu lay jàng xale yi képp koo xamante ni fonkoo sam njàng xadara bi woowul la képp koo xamante ni fonkoo sa liggéey xadara bi woowul kon xamal ni yow mi ngi jël si dërëm def ko ci xadara bi wala nga xamal ni yaa ngi koy ci diine parce que fa la jëm topp ñu sëriñ méthode la ñuy topp. ajrul muslimina. mu ne nag na ngeen nekk sabran muñ leen di ngeen bari kontar danañu leen weddi danañ leen ŋàññ dañu leen leen xas waaye muñ leen rek illaa ma nisaaw leen rek leen xas kontar leen ŋàññ leen tas seeni jabar nangu ko ngir seen ak laay waaye rek sabran ila man yasallahu ajul muslimin muñ leen rek mu ngeen dëkkee ba daje man limaamu ñu leen woowoon ngeen ma ñu xas leen ngir man maay génn mel na ma war a mel taxaw fu ma war a taxaw yor garaat yi ma war a yor ngeen topp sama ginnaaw ma tabb leen fi ma neex